asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah vendredi 12 octobre 2018 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay bi di sunu làmb yëglikaay bi nag tey xëtam mu njëkk ñi ca gën a fes mooy Balla gay numéro 2 ak Modou Lo sunu làmb day la mu jàpp mooy seen combat bii day jàppal sunu làmb nee na day ci kàllaama ak tubaab combat bi daal nee na pour l'honneur la et la gloire maanaam ñoom ñaar day seen combat bi képp ku ci am ndam man na laa yaatal ci ak siiwaay wala ab cër boo xam ne di nga ko am ci àddina bi muy Modou Lo wala muy Balla gay numéro 2 sunu làmb moo xëy tey wax ñu loolu leneen loo yëglikaay bi ñëw na wax na ko mooy Balla ak Modou de ginnaaw ba ko Balla jiitoo Paris la France Modou nag fekki na ko ngir lan face à face boo xam ne war nañ ko faa def suñu làmb moo xëy tey dina ko wax beneen face à face wala beneen combat boo xam ne moom taxaw na war a am le 15 décembre sunu làmb nee na du benn bu budul Bombardier ak kii nga xam ne mooy bilin sikki bilin sikki daal moog Bombardier war nañoo jàkkaarloo stade Marius Ndiaye loolu nag du làmb waaye MMA la mi nga xam ne day def MMA léegi daal war naa defanteeg moom fii ci stade Marius Ndiaye waa ji nag dégg naa ku mën a xeex la ci sunu làmb lim ñu wax te itam ku bari ay ndam la moom na la Bombardier fas yéenee defanteel ba tey loo xam ne dañ cay continuer ci journal bi muy beneen combat boo xam ne taxaw na sunu làmb nee na day jàpp leen kii nga xam ne nii mooy professeur u Lansar bi mook Tonnerre seen combat taxawal nañ ko démb Tidiane Faye ak Tonnerre sunu làmb nee na combat ba taxaw na ka ko taxawal nag yëglekaay bi nee na promoteur bu bees la bu ñuy wax Yaba Ndiaye moom daal moo tëgg loola taxaw na boo wala ay combat xale yoo xam ne taxawal nañ ko ñu ne idaali ñi ngi ma jiite woon les jeunes amateurs léegi nag nekk na promoteur ba taxawal na ki nga xam ne mooy albarka kayre ak boy bawal numéro 2 fourrière ak daam suger sunu lamb moo xëy tey wax ñu loolu muy combat yoo xam ne daal yëglikaay bi xamal nañu ne day taxaw na waaye nag combat bu taxawee fañ koy bëree ji ndax jafe ju fa am bu dee stade Iba Mar Diop la ndax sunu lamb nee na day li leer ba leer mooy stade Iba Mar Diop waa ànd bal ba nee nañ def nañ ca seen 9 millions ba defar seen ab noppi defaraat stade ba kon nag jàpp nañ ni ñoom stade ñoom Iba Mar Diop moom xalaatatuñu waa làmb ja ñëw di fa samp naan dañ fay bëre ndax nag ñoom duñu nangu ñuy defar ñuy yàq loolu sunu làmb xëy tey wax ñu ko leneen loo xam ne moom sunu làmb ñëw na wax ci mooy école de lutte Bada Dione yëglikaay bi ne na day jàppal écrit boobu moom ren seeni affaire dox na lool ndax nag sunu làmb ne na treize victoire la ñu am ak huit défaite moo tax yëglikaay bi jàpp ne day école de lutte day mu ngi ci tempo boo xam ne bu baax a baax a baax ne mooy BMW moom sunu laam ne na moom vitesse bu bari mu ngi koy daw ci école ba la ne bu dee mbay guy gi yëglikaay bi ne na yéegul bësul ku daanu maanaam saful suukar saful xorom dafa daanu daaneel sunu lam mooy wax sor su tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom aatu siñoor moom sunu lam ne na moom it mu ngay wane boppam bu baax a baax a baax ba tey sunu lam bay wax ba tey jon ma nga xam ne nag moo jiite école ba wax na waaye Nokia itam yëglikaay bi ne na moom mooy déception bu mag ba ci écrit ba école it ba tey jon Nokia déception ba ndax moom doxul dox bu wóor ba tey jon nag nee na bilan bi ñu am day bu baax a baax la ci écrit boo xam ne écrit bu ndaw la buy dox di dem suñu làmb moo xëy tey wax ci loolu ku doon xeex nag ngir docteur Alioune jóge fi moom wala nga bëgg ko jàppal ne ñi nga xam ne ñoo jiite làmb ji yore CRC yi nekk ci régions yi moom ne nañ tey wala suba Alioune Sarr fi jóge ndax ne ne ñii ñii di wax moom waxi naaw toq rek la ñuy wax ak leen neex ña nga xam ne wala ka jiita CRC ba ca Thiès ba ca fa nga xam ne nii mooy Matam Louga fi nga xam ne mooy Diourbel fa Kaolack Fatick région yooyu yëpp daal foo ci dem président CRC e fa des nekk moom la ñu xam ne mooy Alioune Sarr demul tey demul suba jàpp nañ ne ñii moom seeni wax la ñuy wax waaye li ñuy wax moom waxi naaw toq wala waxi picc dong la docteur Alioune Sarr fii nekk tey ëllëg waxi noppi kon Alioune Sarr daal daa mel ni bu ñii di ngir mu jóge ci waa CRC e yi moom ci yi nga xam ne ñoo ne ci Sénégal jàpp nañ ne Alioune Sarr demul tey suba waxi noppi Kër Massar mbooloo yëglikaay bi ñëwati na ci ñoom ci boobu waaye keneen koo xam ne ci écrit ba la ne di ab espoir muy Ama bu Malick yëglikaay bi ne na moom day jàpp leen moom daal xale la boo xam ne day espoir bu wóor a wóor la ci écrit boobu nga xam ne mooy écrit Kër Masal Mboro muy écrit bi nga xam ne mooy écrit ñoom Lamine ba Lamine Ama bu Malick yëglikaay bi nee na espoir la ca biir écrit Kër Masar waaye lamin tey la ajjuma nuyu naa la nuyu Mohamed nuyu Sooda nuyu Papa Ndiaye waaye nuyu naa waa kër Cité Damel du noonu la tuddam Cité Damel amul Cité Damel fii Ndakaar am na Cité Damel am na Sofia maa ngi koy nuyu. waaw maa ngi koy ziar man tamit. kon di nuyu waa waa Thiès tamit ak waa Parcelles. maa ngi nuyu ñëpp <laughs> asalaamaaleykum mbokk yéen ñuy a si jàngat bi. Lamine maa ngi lay fay comme ni nga ko waxee tey vendredi octobre 2018. waaw ñu yow jàngat bi comme journal bi rek ni mu koy defee fan yii yëpp Balla Gaye ak Modou Lo gars ko wax lu def waxu ay di jàmbat. li sama waa jooju di bañ nag nee na Balla Gaye Modou Lo rek la ñuy tudd chaque jour ñoom la ñoom la journal bi xëy fësalaat tuddee ko nag combat l'honneur et la gloire. waaw loolu de moom lépp a ngi ci maanaam jàppal ne daal sunu lamb xëyati ca ci ñoom comme ni mu ko doon defee rek Balla Gaye ak Modou Lo li ñu wax la rek maanaam lamb ji moom. ah seen combat bu taxawee boo xoolee du neex a wax waaye day bëri combat am da leen di muur parce que ñoom ñaar seen tolluwaay la ci làmb yëglekaay bi ne nag li mu jàpp mooy l'honneur et la gloire ah loolu nag moom maanaam jàppal ne daal combat bi moom ku ko gañe ak yaa xam lu mu mënti demee ah dina yokk ci yow lu bëree bare bëri ci àddina bi ci wàllu cër booy am wala boog siiw maanaam daal dina yokk ci yow lu doy doy waar ci ku gañ a combat bi. man yaakaar naa ne ku ñàkk combat bi sax du ñàkk dara ci làmb bi nii. du bëri parce ñoom ñaar boo xoolee fi ñu taxawee ci làmb ku ko ku ko ñàkk moom dina xaw a metti ci yow nag Lamine. moom. gën a wóor gañe moom moom. combat moom <laughs> perte ko moom dina am fu la moom. perte que ñoom ñaar seen wujje xam nga wujje gu metti xam nga ne Barça ak Real bu ñuy football ku ñu gañe day métti ci yow. maa xam nga ne danañ laale ñetti yoon ñoom ñaari ñi. non loolu du mën a ñàkk ñaari mbër yi moom Balla ak Modou bii mooy deuxième combat bi waaye jàppante nañ bëri troisième combat. maa ngi leen di ñaan daal ku ci daan bu mu ne dootuma bëri ak sama morom. non loolu man dama gëm ne wóorut sport daal boo ci nekk def sa sport pratiquer sa sport rek du ma ak Papa Ndiaye wala du ma ak Lamine ak yooyu c'est quoi li wóor daal mooy a nekk rek parce que sport la ñuy def te xaalis te xaalis itam nag yomb am. dafa ànd ak xaalis dañoo war a dem Paris nag moo Lo fekk ji na Balla Gaye face à face ca Bercy ba ginnaaw suba la 14 ñu defaat face à face. waaw loolu la nu sunu làmb wax maanaam nag ginnaaw ba Balla jiitoo Modou itam fekkee na ko fa ñu war fa jàkkaarloo suba le 13 ak le 14 di ginnaaw suba. kon jàppale na daal ñaari mbëri fi mu nekk nii moom li am ba des mooy ñu nga France ñoom ñaar ñu nga ca réewam euh, Macron ma. du mën a ñàkk journal bi tamit war nañu ñeneen ñoo xamante gëj nañ leen gis ñu am ndam muy Tidiane Faye ak Tonnerre. ñoom ñaar nag boole nañ leen ndax kenn génn ci sax waaw loo ci mën a dégg daal promoteur bu bees a ñëw tëgg leen bu ñuy wax Yaba moom nag moo ñëw tëgg ñaari mbër yi muy Tidiane Faye ak ki nga xam ne nii mooy Tonnerre ñoom ñaar nag boo xoolee wax dëgg yàlla seen lamb moom gëj naa neex ah bu ñu leen boole nag i faut am ku daan ki daan nag dina mën a sofe génn ka daanu itam uti leneen waaye ku daanu itam dina métti lool ci yow mooy li ma la doon wax waaw bu amee ñaari nit yu daanu moom boo leen boolee kenn ka foog mu ku ci daan di nga génn hmm. mais boo jëlee ku ne ci lancé bu baax di daan nga boole ko kuy daanu ah bu kee ki nga xam ne moo ne ci lancé bu baax bi daanee kiy daanu kiy daanu day gën a suux rek day gën a métti ci moom Bombardier nag demate ne ci MMA waaye bii baa fii la koy defee Dakar boole nañ ko ngor su kii ki Babacar kii ñànga da ngeen a naroo sax ñaar déet kii Lamine kay moom sikki moom bi ak mustaasam yii Bombardier dinañ moom la war a dajal le 15 décembre bi sikki da lañ wax waaw defe naa polonais la daal wala hmm. ak loo ci mën a dégg daal Bombardier décroché na combat MMA le 15 décembre waaye fii Maris Ndiaye lañ koy seqi ñoom ñaar fii Maris Ndiaye la boobaa nag booy booy booy booy man ah man nag su keroogee damay def damay def sama reportage rek waaye loo ci mën a dégg daal xam naa ne nit ku xonq la ak nit ku ñuul. nit ku sénégalais la tamit sénégalais yéen far nañ far rek. kon ñu far ak Bombardier rek amul problème loolu du mën a ñàkk ndax coupe du monde bi sax gis nga journée presse bi bu ñu ci demee. Mm-hmm. bu sa di football da far ak moom ah du mën a ñàkk te xool ku ko yor moom. il faut yàlla am lu mu lay bëgg loo lu mu yàlla nay doon lu baax n

su euh, bu fekkente ne stade dafa mel ni Demba Diop la 500000 francs yi moom ku fay tëgg yaakaar naa di nga ko génne teg ko ci table ci location bu dee Iba Mar la lu mu metti metti di nga génne 200000. wala lu ko xaw a jege kon jàppal ne daal lamb moom xam naa daal cosaani réew mi la waaye stade yi moom. amuñu ci loolu ndax nag dañ leen di fayloo xaalis bu seer te bu dee yeneen discipline la des ay 40 mille ak yu kenn xamul la ñuy waaye loolu nag maanaam day mel ni deux pas deux mesures wax parce que lépp sport la waaye nag comme te ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ te làmb neen mooy suñu sportu réew. Mm. Ah, waaw kon nag nañu gën a fonkaat li ñu am loolu am na solo de la. ñi moom dafa mel ni fonk nag seen écurie ba tax ñu góorgóorlu muy écurie bare joon mm. treize victoire huit défaites jaadu na ci écurie bu ndaw. waaw loolu moom c'est normal moo tax nag yëglikaay bi nee na daal école de Bada Dione day tempo bi ñu nekkee baax na fi mu ah, nii ñoom ñoom ñu ngay doxal bu baax a baax a baax ki bëgg a doxal mooy yee daal ñëw na nekk promoteur taxawal na deux combats waaw ñaari combat espoir la taxawal sunu lamb nee na nag ki nga xam ne moo nekkoon président des jeunes amateurs nekkoon amateur bu mag léegi ay combat espoir yoo xam ne daal ne yi daal di ak groupe bii di ñëng production taxawal nañ journal bi ñëwaat na ci Balla Gaye Modou Lo ah, de mooy li amagu fi nekk nii te ñëpp ngi xaar yeneen combat VIP taxaw waaye dafa mel ni daal fi nekk nii combat espoir rek mooy taxaw mm-hmm. waaye loo ci mën a dégg daal Balla ak Modou moom ah war naa tax yeneen a war na cee toftalu daal. Lutte TV du taxaw ndax am na ñu nekk seen ginnaaw muy msdprestige.com jaaykatu oto yi ak msdimpact.com. du mën a ñàkk taxaw moom ah yàlla na ñuy gën di yokku rek waaye yàlla na ñëpp di gën a yokku tamit waaye loo ci mën a dégg daal jàppal ne ñun ñi ñu gën di dimbali msdprestige.com la. borom oto yu baax yi msdimpact.com borom pièces détachées yu baax yi Lamine. Mm-hmm. ñoom ñooy jàppale boo xamante ni doo ci am benn problème kenn du ne la lii maa moom. Lamine wóor a gën a wóor wóor rek a wóor lu wóor dara te wóor nag mooy dëggu dëggal soo ko defee doo son doo sonle doo jéppee dee su la jéppi kon nag yàlla nañu yàlla dimbali ci lu wóor ñoom nag lu wóor la ñuy def ndax dañ lay jaay oto bu baax jox la ay numéro téléphone yoo yore boo paanee ñu ñëw defaral la ñu ñu recenser la pièce jaay la pièce bu baax defal la ca bu fekkee da ngaa dawal oto ba mu paan ndax oto day paan nit di taxawee leen oto di taxawee. yaakaar naa ay oto yomb la ñuy jaay non seerul parce que itam fi mu nekk nii moom am na loo xam ne boo bàyyi xel ñoom nag li ñuy jaay par rapport ak oto bi ñu lay jaay ak njëg bi ngay joxe boo ko xoolee da nga naan li raisonnable na quoi. raisonnable na léegi am na ñu bëgg oto ndax jox leen jox MSD Prestige. du mën ñàkk am nañ seen numéro bu njëkk ba comme nañ ko daan waxee 77 la 227 07 84. ñaareelu numéro 77 la 393 33 10. wala ñu tàppee rek www point msdprestige point com. sa téléphone boo xoolee rek di nga gis oto yi ñuy jaay. service commercial de TV. waaw ku bëgg a ji waaw <laughs> sam njaay. fooy jaar am na ñuy woote démb de. am fu fu maanaam daal fi ngay jaar fenn la 78 ngay def 130 85 57. du mën a ñàkk ñu nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Lamine. képp ku ñuy dégloo ko bàyyi xel rek ak fa mën a si àddina rek ñu ngi lay nuyu di lay ziar di la ñaanal jàmm di la wax ne daal xës la nature. fu mu nekk xës dafa raar temps yi xës moom dafa mel ni. la bëgg bu lamb bu lamb bu mbër yi moom day xaw a nëbbutu quoi. mais ñu ngi koy nuyu bu baax a baax xës la nature di ko ziar di ko ñaanal jàmm. di nuyu waa Paris yëpp Pape Diouf ak Paris. waaw Aziz Ndiaye nga Paris Ketchup duñ ko fàtte. Ketchup mu nga Paris Bousse ñoom Pape Diouf borom génération consciente ak ku mel ne Aziz Ali Ndiaye. xam nga mbër ya ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ak ñëpp ñi nga xam ne daal tey ñu nga Paris di waajal Bercy bu Pape Diouf bi di ko ñaanal mu réussir Lamine parce comme li ñuy wax rek ñun ñëpp ay sénégalais ñoo bokk réew mi man li ma bëgg mooy sénégalais bu sol dàllam dem di wuti dara bitim réew nañ ko ñaanal yàlla mu réussir ko mm-hmm. parce tamit ñoo bokk réew mi fii ay juuf ak njaay ak ki bad seek ki saaneek sant yooyu nga fiy dégg séréer yeeg wolof yeeg jol ak tukkulóor yeeg manjaak ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk sunu Sénégal nan yéeneente jàmm ñaanal ku ci nekk loo dugg nga réussir ko Lamine. di nuyu maam Balla Gaye Abdou Xarañ ak coach su Jabong. Abdou Xarañ borom borom kare bi. su Jabong waaw man de technique yam ma jox man vraiment rafet na trop te yow it yaakaar naa parfois ba mu la jox. Ah. ah amul nu mu baaxewut. du mën ñàkk di jox ñëpp rendez incha allah yàlla nañ ko fekkete tal ko.